jërë ngeen jëf mbokku internetu Leewtoo TV am mbégte jàkkaarloog yéen comme ni ngeen ko xamee Leewtoo TV dafa def benn programme chaque jour di lundi au chaque jour mu indi leen benn émission bu bees tey nag ñu euh, dem daje kenn koo xam ne nii ci làmb la bokk koo xam ne nii kenn du ko présenté ci làmb euh, en même temps ñuy euh, tourné waale premier numéro ëttu amateur ëttu amateur benn émission la buñ jagleel amateur yëpp amateur yëpp ñoo ko moom ku nekk am nga ci sa wàll tey nag ñoo am mbégte dalal président des amateurs mu tudd Gora Ndoye Gora Ndoye ñu ko xam mu jiite président de tous les jeunes amateurs Gora ñu ngi lay nuyu. waaw Assane maa ngi lay fay vraiment di la nuyu di nuyu vraiment amateuru lamb yi. Mhm. di nuyu ñi nga xamante ni ñu ngi suivre à travers Leewtoo di sant bu baax association des jeunes amateurs. Mhm. bi nga xamante ne moom laa jiite di nuyu amateuru lamb yi. Mhm. di nuyu monde de la lutte bi yëpp vraiment. Gora jërëjëf. di leen waxtaanee ci bilan Alioune Sarr arrivé euh, Bira Sène hmm. ay huis clos actualité làmb daal di ko waxtaanee mais pour bu ñu démarrer fu ñu démarrer ma première question bi dama leen koy jagleel yenn jeune amateurs yi. Hmm. ba ngeen fi ñëw fekkoon ngeen fi ay association amateur taxawoon. Hmm. pourquoi ngeen dikk choisir créer association alors que yeneen association taxawoon na ba pare. waaw asan loolu boo ma ci laajee dinaa ci sawar a tontu parce que yaakaar naa ñun association des jeunes amateurs bi ñuy créer association des jeunes amateurs fekkoon na amoon ne yeneen amateurs yi fi nekkoon. Mm-hmm. ñu bokkoon ci association yooyu noonu. Mm-hmm. mais dañu dem ba benn moment sentiratuñu suñu bopp ci ñooñu. Mm-hmm. peut-être loolu moo waral ñu initier association des jeunes amateurs. ànd ci ñun ñi nga xamante ne ay jeunes la ñu nekk ci làmb ji. du lundi au dimanche chaque jour que jëfee amee dañuy ñëw di assister. peut-être moo tax ñu gis ne war nañ mën a créer association parce que association boo ci dee bokk daf lay jariñ mhm. mais ne yow bu làmb yu ndaw amee doo amee lu ñuy kaas duñ la gis mhm. loolu moo gën a poussé ñun ñu créer suñu association mhm. te ko ba léegi wax dëgg neex yàlla ñu ngi ciy gis ay tànku avancement ñu ngi ciy gis ay tànku kanam amuñu ci dara daal lu ñuy réccu ba ngeen ba léegi lan ngeen mën a teg baaraam loo xam ne nii réalisé ngeen ko waaw depuis que ñu teg naa wax ni bientôt trois ans mais wax dëgg neex yàlla ñu ngi ci gis suñu bopp parce que tey jii ñu ngi def loo xamante ni bu njëkk amul woon parce que tribune moo ñu daan boole dañuy ñëw seetaan lamb mu jeex ñu ñibbi mhm. mais léegi yàlla dogal na dem nañ ba nga xamante ni association des jeunes amateurs léegi famille la tey jii nii képp ku xewle foo mënti xewle mhm. ci dix régions Sénégal yëpp dañ la fay fekk ji ak mhm. suñu social boo xamante ni ñun ñoo koy jël ci suñu kees ñëw jàppale la ko ci sa bés muy naqar wala muy bànneex te àdduna ñaar yooyu ñoo fi nekk te pourtant kenn ku nekk ci ñun am nga mbër mais léegi dem nañ ba mbër mënatuñu boole léegi famille lañu lépp lu xew si ñun rek dañuy jóg di demlante en même temps aussi ñu ngi ci ay projets yoo xamante ni fii may waxee yoon nii tijji nañu suñu page Instagram. Mm-hmm. am nañ suñu page YouTube. Mm-hmm. am nañ suñu page aussi Facebook. Mm-hmm. léegi lépp loo xamante ni activité la bu ñuy def ñu ngi koy publier. en même temps aussi ñi nga xam ne bëgg nañu rejoindre groupe bi. ñu ngi leen wan ni groupe bi. ay jeunes yu ambitieux ñoo ci nekk ay nit yu respect responsable ay liggéeykat ñoo ci nekk amul chômeur amul kuy taxawaalu d'accord mm-hmm. wax nga ne yéen a ngi def ay affaire actes soci sociaux mm-hmm. waaye di di yëngu ci social bi mm-hmm. mais lan nga war a mën a wax loo xam ne nii lu concret la loo xam ne nii yéen a koy def ci làmb tew mu war a mën a jëmal kanam làmb waa li ñu def li nga xamante ni ñu ngi koy def muy ay acte social yaakaar naa bari na tey ji loo xamante ni peut-être dañ koy def mu nëbbu am na nag yu jot a feeñ mhm. parce que bëri na ay anciens lutteurs yoo xamante ni tey ñu ngi leen di jàppale socialement am na ay lutteurs yoo xamante ni aussi tamit yàlla dogal na tëdd nañu feebar ay mbër yoo xam ñu ngoon en activité benn ci suñu frère bi Jules Balé nekkoon suñu rak ñu yor ko mhm. Mhm. yor ko ci ki nga xamante ni tey jii mooy carrière ba ñu yàlla dogalee li ko dal dal ko ñu assisté ko ba yàlla jël ko vraiment ñu koy jaale waa Pikine di ko jaale yaayam di ko jaale ñëpp mu nekkoon suñu frère loolu rek acte social la d' accord ban touche ngeen indi lu nouveau loo xam ne nii indi ngeen ko ci làmb mm. parce que yéen yeneen association yi daawuñ ko def waaw touche bi ñu indi tey jii muy nouveau ñu indi ko ci làmb yoo xam ne yeneen association yi duñ ko def benn comme ni ma la ko waxee ñu ngi def ay social mhm. yoo xamante ni am na ciy feeñ am na ciy nëbbu parce que du lépp la ñuy wax am na ci aussi ay projet yoo xamante ni ñu ngi ci di ko liggéey projet yi nekk di ko liggéey xam naa un peu de temps dinaa la woowaat ñu gën la ñu gën ci développer parce que ñu ngi waxtaan ci bureau bi mhm. te laajagul ñu génnee ko en même temps aussi tamit comme ni ma la ko waxee tey ji nii association des jeunes amateurs dafa mhm. na wala setul te yooyu ay président la ñoo xamante ne ay xam nga moo moom mooy loolu quoi. Mhm. xam nga ay kii la rek président nii rek. d' accord waaw mhm. d' mhm. euh, seen association bi mandat par mandat la. mandat bi ñaata la ak yow depuis kañ nga nekk ci boppu association bi. waaw mandat bi yaakaar naa ne bientôt ñu dem assemblée générale. parce que mandat bi quatre ans la. yaakaar naa defagum naa deux ans dese na ma deux ans. bientôt ñu dem assemblée générale. mais li nga xamante ni tey jii moom moo a da ngay da ngay renouveler waat wala. waaw loolu bu ñu ci yeggee rek mission bi heure bu ko yàlla jeexalee rek mm-hmm. incha allah day jeex parce que tamit ñëw ñu ci làmb pour jiitu ñun xëccu ñu jiitu dèjà njiit bi sax dañu ko forcé mais du lu ñu dem élection du lu ñu voté mm-hmm. yàlla moo dogal xëy na ñu jaf ñu jox ñu ko ñu ñu ko jox aussi di suñu ay morom di ay gor mm-hmm. ñu téye ko fas yéene am fu ñu ko yóbbu fu ñu ko yóbbu aussi bi ñu demee ba egg fa bu keneen ñëwee pare pour yóbbu ko fu ko gën a kawe dañ koy jox lengee yi parce que ñu xam leen ci làmb mhm. lépp lu ñuy def boole leen ci en même temps ñuy defendre intérêt amateur mhm. mhm. d' accord bu ñu ci seen association bi léegi dañuy daal ci CNG bi Alioune Sarr nekk na fi pendant vingt six ans maintenant dem na ban bilan ngay tiré ci reñ bi ñu def waaw Alioune Sarr moom vraiment bilan bi ñuy tiré ci li nga def nga xamante ni tey liggéey na ko ci làmb mooy bilan bu baax tey ji Alioune loo ko mënti waxal mooy liggéey na làmb parce que ñun dañ daan dégg bu njëkk làmb da nga naan bëre ba la bon tey ji jëlee na fi loolu Mm. gis nañ ne aussi tamit bu njëkk mbër yi dañ daan bëri ci noo xamante ni tey mooy loolu ñu gis ne daal vraiment ayam def na làmb lu bari te ci ayam aussi lañ am arène nationale vraiment mu nekk koo xamante ni liggéey na ci làmb li ko waroon ñu koy sant di ko gërëm di ko ñaanal foofu mu nekk aussi tamit yàlla dafa ko fa jàmm d'accord mu dem mm-hmm. Bira Sène ñëw mm-hmm. est-ce que xaaroon nga arrivé Bira waaw non Bira moom kenn xaaru ko woon ci làmb parce que mm-hmm. tey it mu ñëw ba léegi mu yaatal convoqué nañu réunion bureau waxtaan nañu ak moom man ak moom dañuy déggante en même temps tamit nit la boo xamante ni ku ouvert la ku ñemee partage la parce que depuis mu ñëw mu ngi xool li nga xamante ni ay problème la woon ci lamb muy fexe ni mu ko réglé. exactement mm. Bira Sène toog na yéen en tant que jeune amateur lan ngeen di xaar ci nouvelle équipe bi fi toog waaw nouvelle équipe bi fi toog mooy mooy fexe na ni ñu defaree lamb rek parce tey comme ni ñu koy waxee lamb famille la. Mm. boo dee waxtaan ak acteurs yi nga xamante ni ñoo composé la lutte bi tey jii nii. Mm. lépp loo ci bëgg mën nga ko am. parce que lépp loo gis rek waxtaan la. Mm-hmm. peut-être nag côté boobu noonu Alioune Sarr woon moom ci woon loolu. nit la boo xam ne nit bu euh,

par exemple. waaw non loolu góobu mu freiné CNG bi de parce que loolu liggéey la rek boo xamante ni tey jii nii xam nga. moom dafa am fu mu fekk làmb am fu mu ko bëgg yóbbu. gis na ay actes yoo xamante ni vraiment ñi composé lutte bi ñu ngi koy wax di ko kaas. mbëri ñuy kaas ne licence dafa seen seen euh, seen licence dafa cher. gis nañ ne 1000 francs yi ñuy cotiser. diñ jógee ci région yi di ko paas di ñëw di ko participer ci lutte simple bi mhm. Mhm. dafa bari mhm. comprendre nga gis nañu aussi tamit ne promoteur yi ñu doon kaas ne licence dafa cher yooyu yëpp tey saluer parce que mënoon na ñëw ñëw rek continuer li fi nekkoon mais wane na ni ku bëgg a liggéey la ku bëgg a am fu mu yóbbu làmb la kon kooku aussi dañ koy ñaanal rek yàlla defal ko jàmm ba fi mu bëgg yóbbu làmb ji rek mu yegg fa d'accord ñu aborder démarrage saison bi ñu ci mois de février ba mai ba léegi mm-hmm. saison bi démarré gul. Mm-hmm. yow lan nga mën a indi bees. ban mm-hmm. information nga nañ nga ñu mën a jox. ci wàllu ouverture saison boobu. waaw ouverture de la saison moom li ma la ci mën a jox comme lu bees. yaakaar naa ministre bi recevoir nañu samedi bu lay passé ci CNG bi. ci ministère. yaakaar naa acteur lamb yi ñoo fa nekk woon. te li mu wax li mu tekki suñu loxo mooy que ni tey jii nii moom pare na pour ñu ibbi lamb ji bientôt yàggatul dara. li nga xamante ni nag moom dañ ko ko dénk muy njiitu CNG bi mhm. lépp lu ko ci war mu ngi koy def pour làmb ji ibbi mhm. mais xëy na yàlla moo dogal Covid bi dugg ci dëkk bi mhm. vraiment am nu mu fi def est-ce que mën naa xaar avant février bi jeex euh, comme que mu que tamit euh, ministre bi nit ku am kàddu la mu koy saluer koo xamante ni vraiment depuis mu ñëw ba léegi ci bi mu ngi liggéeyal làmb te ñun ñi nga xamante ne ay acteurs lañ nekk ci làmb gis nañ li mu taxawoo làmb mu ngi jàppale mbër yu feebar yi gis nañ kaaw Jules Baldé Junior ni mu ci taxawee gis nañ kaaw suñu père Mbaye Guèye gis nañ aussi tamit bërki suñu Papa Boy Bambara li ñu génnee àdduna gis nañ témoignage yi doom yi def si moom vraiment yooyu nekk ay actes yu teg ci ci ci nga xamante ni mooy lamb ji kase nga xam ne mu ngi ba Mbour def benn blessure ci lutte avec simple bi gis nañ aussi taxaw bi mu ko taxaw mm-hmm. kon nag moom vraiment ñu ngi koy ñaanal muy monsieur le ministre ba di ko ñaanal yàlla defal ko jàmm à part loolu CNG bi également mi ngi initier les mercredis de l'arène c'est-à-dire chaque mercredi mhm. CNG mooy organiser ay combat espoir yoo xam ne ni moom moo ko tëgal boppam yow mhm. loolu nan nga accueillir euh, li ñu mel waa loolu nouvelle bu neex la mhm. parce que yaakaar naa ni CNG bi fi nekkoon daana tëgg ay lamb gis nañ tournoi souvenir yi daanañ ko tëgg di jël ay lutteurs yi nga xamante ni ci écurie lay ne di leen boole depuis que benn moment gisatuñ ko woon gis nañu aussi tamit daan nañ anticiper ci làmb mm-hmm. mais depuis mën naa wax trois ans wala quatre ans ci ginnaaw gisuñu ñu participer ci làmb mm-hmm. kon tey bu Bira Sène ñëwee mm-hmm. anticiper les mercredis de l'arène pare pour jàppale yenn espoir yi nga xam ni dañu am problème combat vraiment loolu ñun amateur lu ñu saluer parce que tey ku yokkul rek yaa wàññi vraiment te Bira Sène ñu ngi xaar liggéeyam ñu ngi xaar liggéeyam te am nañ ci moom yaakaar parce que euh, ba aayewul bi démarré mais yow en tant que jeune amateur. Mhm. nan nga jàngatee euh, décision boobu. waaw loolu ñun amateurs yi peut-être du ñu neex parce que ñun bu ñu sañoon chaque lamb dañuy dagg bee ñëw toog parce que ñun loolu moo ñu dundal ñun ambiance lamb moo ñu dundal. Mhm. mais nag ku amul li la gënal da ngay jàpp fële fa sës Assane. Mhm. parce que tey boo xoolee lamb toll na moment boo xamante ni. ku ci mel ni Baba Diaw suñu frère. Mm-hmm. nekk ci am mm-hmm. jour bi mu waree tëgg combat soq ak Gamou Gueye ci veille combat bi ci lañ ko woo ne ko làmb ji mënul am. depuis lors mu ngi dépensé ay minimum toog mm-hmm. di xaar mbir yi ñu ngi toog préparé wu pare nañu di xaar. depuis daaw ba ren te loolu daf si dafa metti tey bu fekkee mën nañ tëgg huis clos sans autant que nit ñi dugg mhm. ñu jaay ko par mhm. ñun amateurs yi ñu mën ko jënd toog suñ kër seetaan ko promoteur yi mën ci génn mbër yi tamit xam nga libéré mhm. mais loolu sant yi na ñoom suivre bu dee huis clos am na seen kër bañ a loolu dañ ànd parce que tamit euh, du dañuy bëgg ñun lu ñu neex ba lor ñi nga xamante ni tamit ñoo dépense seen xaalis parce que promoteur bi xaalisam bi mu jël dépensé ko bu sañoon tey jii nii xaalis boobu génn te te benn moment ñu ngi toog boobu léegi ànd ak ngëm yàlla mbër aussi bu ñu sañoon tey ñu pare ci combat yooyu pour mën a mm. jëlaat yeneen combat mm. parce ay xale lañu te ay yaakaar lañ ci seen ay famille wax nga ko yow yaa fi wax kot wala mm. PPV euh, loolu est yaakaar nga ne méngóor ak làmb waaw côté PPV bi gis nañ ni am na ay combat yoo xam ne jaar na fi. parce que gis nañ premier jour bi ñu ko njëkkee seetlu mooy diggante Balla Gaye ak Bombardier ak ki nga xam euh, mhm. na amoon na ay tuuti jiixi jaaxal parce que yenn amateurs mhm. wax ne dañuy jënd code mais duñ ko seetaan mhm. parce que toujours am des fois yenn affaires yi loolu aussi tamit ñu ciy lancé waat appel a jël ñu seen ay disposition xam ni tamit nit ñi nga dañuy jël ay seen xaalis dem jënd ji ko code bu ndee dañ koy jënd dañ ko war a seetaan mm-hmm. mais jënd sa xaalis code ba pare mënoo am image bu baax xam nga mënoo ko seetaan aussi loolu tamit vraiment bëgguñu ko daal mm-hmm. bu ñu sañoon daal heure bu ñu demee ba di ko jël mm-hmm. pour pare pour ànd ci ak ñi nga xamante ne ñooy acteur u lamb yi mu nekk lu lu normal loo xamante ne tey bu fépp fu ñu ko teg ñëpp dinañ am image bu normal seetaan ko d'accord euh, euh, ñu jógee ci loolu gis nga euh, yéen amateurs yi parfois da ngeen di dem stade mhm. mais ay casse dafay bëri mhm. la preuve mhm. arène nationale bi ñu ko defee yàggoon mais ay sièges yu bëri yaaxu nañ fa loolu lépp ci ndodd amateurs yi lañ ko def est-ce que jotul ngeen yar seen bopp ba bu ñu leen joxee lu mel ni arène nationale ngeen ban koo sauver waaw non Assane loolu foofu boobu moom xam naa ni dañoo dañeen a déggoowul par rapport ak euh, amateurs yi ñun amateur ñun ku ñu xam xam ne ñun luy doxal lamb rek ci la ñuy dox ñun chaise yi ñuy toog sax bu ñu ñëwee fekk promoteur bi nettoyé ko sax ñun ñoo koy nettoyé toog ñun duñ damm chaise loolu supporter yi ñoo koy def te supporter mbërëm moo koy indi xam nga tey ñu daan sa mbër nga jël chaise bi nga toogoon damm ko ëllëgee bu sa mbër di bëre boo ñëwee fooy toog boo xoolee chaise yi damm yëpp camp supporter yi la mm. foofu aussi tamit ñuy interpeller nga xamante ni tey mooy fans club seen président yi mm. ñu gën di sensibiliser amateur ñenn yenn fans club yi mm. leen xamal ne lamb foo la mm-hmm. parce tey chaise yooyu damm yëpp tey gi nii mm-hmm. seen mbër lañ daan ëllëg seen mbër yooyu dañuy daan mm-hmm. te bu boobaa dañuy jubilé kon nañu ànd ak yar xam ne arène nationale boo xamante ni dañ ko defal lamb bu njëkk ñi fi jaar ñëpp dañu ko doon naxee ci ayu Macky Sall premier euh, monsieur le président ak ki nga xamante ne mooy monsieur le ministre Matar Ba mhm. ci ayam ci la loolu amee kon nañ ko respecté te xam ni arène nationale du ay caaxaan mhm. ku ci ñëw sa mbër ñu daan ko nga def mhm. fair play génn akolaat ñi la daan beneen yoon yàlla mën na la may ndam mais damm ay chaise loolu du respect arène bi ñu bëri dañ naan ne euh, méngoowul ak histoire lamb. histoire lamb loolu yow noo ko noo ko dundee. waaw loolu moom am na arène bi peut-être euh, peut-être mën naa wax ni peut-être bi ñu koy defar. Mhm. plan bi. Mhm. xëy na bu ñu woon ñi nga xamante ni ñoo composé ñi nga xamante ni mooy lamb ji. tey dinañ leen jox plan wu arène. bi nga xamante ni tey moom arène noonu la war a bindoo. Mhm. mais peut-être yooyu yëpp mën naa wax ni ay erreur la yoo xam ne am na. lan nga jàpp ne mooy erreur ci arène bi. waaw mooy man erreur bi ma mooy arène bi am na ci côté tribune boo xamante ni tey dafa jege comprendre nga dafa mm-hmm. jege géew bi mm-hmm. ba pare amul benn couverture boo xamante ne yow boo jógee ci tribune bi war nga mën a daw ba ci géew bi te dara du la téye mën mm-hmm. naa wax ni ci combat ñàkk jariñu tey jii ak ki nga xamante ni mooy Alioune Seye 2 ci lañ sax jëlee ay disposition def benn barrière ci biir defaat deuxième barrière ci biir nga xamante ni yow boo jógee ci tribune bi sa mbër bu daanee boo kontaanee bay daw di ñëw balaa ngaa yegg si bay tëb benn barrière bay tëbaat beneen barrière service de l'ordre bi dinañ mën a ñëw def seen liggéey mais boo xoolee bu njëkk avant loolu di am mhm. da da daan nit ñi daw dugg ci yoo xamante ni tey làmb tëgg boo boole woon ñaari ginaar sax dañuy ñëw toog ban som wudul làmb moo leen ban som nga a fekkee ci som buñ paree ci biir làmb hmm. boo xam ne ni fekkee nga ko waaw non man yàgg naa fekkee ay som yi teg ci biir làmb mais may sax ñëw di ci bàyyi xel hmm. parce que man loolu yóbbu ma ci làmb man làmb hmm. dama am amour bi bi mbër yi bëre bu ñu daanee sama mbër damay bég kontaan man naa ñëw assister làmb ju egg rek mais yaa ngi dégg ne am na ñoo xam ne ci tëj seen kër wala auto genre yi demee mooy nga xamante ni mooy loolu rek xam nga tey ji parier boobu moom am na ñoo xamante ni tey làmb muy làmb muy football muy lu mënti doon dañuy parier parce que ñoom loolu moo nekk seen xol mais am na ñoo xamante ni tey lamb virus lañ am virusu lamb lañ am tey boo tëggoon fii léegi mbapat léegi ñu bàyyi li ñuy def dem seetaana jiko mhm. ñun mooy ñun les jeunes amateurs ñun lamb mooy ñor duñ ñëw làmb di parier mhm. ñu ñëw lamb di xuloo mhm. ñu ñëw lamb di xeex tey xam nga lan mooy suñu objectif ñun tey jeew nga faral Siteu mën ma faral Papa Sow yàlla dogal yow sa mbër daan sa mbër pare yëg ci kaw tribune bi ñu yëkkat suñu xaalis may ko jënd boisson yow mi nga xam ne sa mbër moo daan nga jënd boisson paye ñu ñun ñu toog ñëpp ñun loolu mooy suñu amul ci làmb muy fair play ka foore ku xew la ñu ñëwal la di def social yoo xamante ni boolewuñ ci wax di liggéey en même temps aussi tamit pour avenir u làmb mhm. parce que amateur dañu seetlu amateur yu bëri léegi bàyyi nañ làmb soo waxee ñu ne làmb violence dañu nekk ci retrouver waat amateur yooyu indi leen parce que mhm. bëri na tey tey bàyyi nañ violence bi nan ngeen def ba éviter ko a def ba éviter ci biir euh, lamb waxtaan suñu biir peut-être mooy li ma la wax rek dañu nekk ci ci di waxtaan suñu biir mhm. peut-être am na ci bëri bëggoogu mhm. ma mhm. def violence lamb ah ak ñi nga xamante ne lamb taxu leen ne ñooy dafa war a dépasser main porte parce la plupart ñiy dugg ci biir lamb di def violence mooy ñiy taxaw ci bunt bi duñu dugg benn mbër indiwu leen li leen indi mooy que ni dañu ñëw mhm. pour bu nga xamante ni bu làmb amee problème ñu daw dugg ci biir géew bi mhm. sàcc portable jàmbur yi mhm. def ay violence la plupart mooy ñi ñuy may porte làmb bu fekkee amoo billet nga toog sa kër wala tamit bu ñuy mayee port ñiy dugg ñu fuyete leen xool ndax yor nañ arme wala déet mais dañuy jékki-jékki rek et puis porte bi nit ñi daw dugg d'accord te loolu gënul ñu aborder dernière euh, partie bi mooy mhm. floraison association yi ñu mhm. ngi ko waxee bi ñu démarré association yi bëri na trop mhm. lan mooy solution yi bañ euh, association yi mën a retrouver wu ci benn grande association pour que làmb mën a dox parce que mënoo CNG bu yo euh, par exemple bu woote benn ndaje il est obligé mu convoqué ay association yu bëri alors que mënoon na def benn benn benn benn comité rek wala benn association mu invité leen mm. ñooñu waxal ñëpp nan ngeen di def ba retrouver ci benn association di waxandoo di dóorandoo mais Assane man fi mu toll dama gisul ne beneen association amateur am na fi de fii benn association ma fi am muy jeune amateur mm. parce que la mooy association association moom moo ko jiite association boo xam ne association boo xam ne yow mënoo mënoo mënoo taxawal quinze personnes ah. association du ay tour rek de loolu nag dafa jot CNG bi liggéey si képp koo xamante ne yaa ngi ne yor nga association moom am na xamante ne tey muy bureau mhm. présenter sa bureau mhm. présenter sa commissaire au compte mhm. présenter sa trésorier présenter sa porte parole présenter sa secrétaire général présenter sa vice président présenter sa président mu bureau li ngay wax nii doon nga présenté aussi tamit benn nombre de personnes boo xam dañuy xam ne ñii mhm. am nañ carte membre adhéré nañu wane nañ ne lii ñii ay amateur lañ mais xam nga amateur boo xam ne figurant nga rek président boo xam da ngay ñëw toog vingt personnes duñ la topp drapeau sax buñ la ko tuddee mënoo dajale cinq personnes mais loolu du président li ngay wax ni kon euh, du jànje ko association non ñooñu ñëpp mhm. ay figurant lañ moment bu njëkk ñoo fi nekkoon dañu dem ba nga xamante ne mooy li ma la tax ñu bàyyi làmb parce que duñu leen waxal seen soxla duñu leen revendiquer dara tey jii nii li ñu bëgg mooy làmb ju mag am na ñu ñëw toog man maay président amateur yi man maay lii mais président amateur yi day ànd ak jëf ngay yi di fekk ji amateur ñu nekkee ci jafe nekkee ci ay problème di leen bëgg am lu ñu bañ bu làmb chéré nga dem ci promoteur wax ak moom bu làmb amee problème nga taxaw leen mais président à charge président euh, xamante ne yow doxaloo làmb euh, euh, mooy ñëpp ñooñu moom mooy li ma la wax rek nañ ñëw bootu ci ginnaaw xale yi gis nga la tey ñoom ñoo fi nekkoon 2002 ba 2000 ñu ngi ci 2021. lamb day toll maa boo xam toujours day am ay révélation mm-hmm. mm-hmm. leen dem dem point de presse. lamb jaralu leen dem mbapat guddi. lamb jaralu leen yenn yi. ñoom kon ñoom dañuy dañuy dund dañuy dundee lamb mais dundee. ñu lamb dundaluñu lamb ñooñu lamb raw na leen asan. lamb da ah leen lamb xale koy def. Mm. loo gis tolluwaay la. lamb da leen dépassé nañu bàyyi li ñuy def ah. mooy ñuy wër di wax naan ay président amateur duñu président wu amateur kenn amateur yi ñu àndaloon yëpp bàyyi nañu ah. ñuy màgget nañ ñuy ñëwatuñu lamb ah. et puis arène nationale bi fi mu nekk mm-hmm. bi léegi mu ngi Pikine mm-hmm. lamb nekkatul da ngay tëri sa kër ba cinq heures nga ñëw de arène nationale bi ku fa trois heures fekkul boo ñëwee doo dugg kon da wax ne arène bi daf leen a weer quoi da leen a weer parce que tey jii nii ñu lamb jaral ñëpp su heure arène tëggee mm-hmm. arène nationale leen fekk lamb ji d'accord mais ñu làmb jaratul amateur yi bëri ñëwatuñu arène nationale. parce que transport bi ak temps bi ñuy bàyyi pour ñëw ci làmb ja jaratu leen ko. ok bi day weer ñu bëri de. benn kàddu ci mm-hmm. Reug Reug mu dem ci MMA gagné. waaw Reug euh, Reug moom vraiment koy félicité quoi. Mm-hmm. parce que tey jii nii loolu mu am noonu ndamu Sénégal la. Mm-hmm. ndamu sport bi yëpp la rawatina làmb nga xamante ne ci la xam vraiment muy nit ku baax. vraiment ñu gis aussi tamit liggéey bi muy liggéey mu nekk liggéey tey jii nii Reug Reug fépp fu turam mënti egg rek mhm. pour Sénégal la yóbbu mhm. drapeau bi aussi la yor kon ñu ngi koy ñaanal ndam yi muy ñëw yi mu am ni mu mhm. am ndam yu ko raw vraiment ñu ngi ko koy ñaanal jaajëf Gora première émission ëttu amateur mi ngi woon noonu ñu amoon mbégte dalal Gora waxtaan bi dégg ngeen ko neex na am na solo li moo doon premier numéro Leewtoo TV mi ngi noonu Leewtoo TV mi ngi noonu nii la chaque jour dañuy jóg dem ci amateur yi xool leen fi mu nekk ñu jox leen kàddu ñu wax seen soxla wax liñ xaar ci CNG bi li ñuy xaar ci lutte yi loolu lépp ngir làmbu avancé ñu ngi amoon nañ mbégte jàkkaarloog góor a di la remercier bu baax baax si mhm. disponibilité bi mhm. li moo doon premier numéro bi waaw bàyyi la nga nga waaw xanaa di gërëm vraiment sëñ Fallou bi ma fekk fii rek nga mhm. xamante ni man fii laay liggéey la plupart saa yi ma ma interview rek fii laay ñëw di ko gërëm di gërëm jabaram Marème di gërëm njabootam aussi tamit di gërëm waa Pikine di gërëm sama soxna nga xam ni mbuur laa xëyee tey sama deuxième femme Adja di ko mm-hmm. nuyu di nuyu aussi tamit Ndey Boro sama première femme nekk Pikine mm-hmm. di sant sama yaay di sant ñi nga xamante ni mooy amateuru lamb yi nga xamante ni jiite naa leen ñoom ñëpp mm-hmm. di sant aussi tamit monde de la lutte parce que vraiment association des jeunes amateurs bi mu ñëwee ci lamb ak léegi yàggul mais marqué nañ seen empreinte ba nga xamante ni lépp lu nit di def jox ñuy wax gars yi nañu gën a jàppoo gën a liggéey mm-hmm. te xam ne liggéey bi mu ngi xaar ci kanam di remercier diaspora bi amateurs yi fa nekk di mm-hmm. remercier aussi tamit amateurs yi nekk Brésil nga mm-hmm. xamante ni ñoom ñëpp ñu ngi ci groupe bi di leen sant leen gërëm di ñaanal ñëpp jàmm jaajëf Gora mu ngi noonu léegi dañuy lancer benn appel amateurs yi nekk ci Sénégal yëpp ku ci bëgg am jotaay bi Leewtoo TV boo ko contacté dina ñëw sa marché bi nga nekk ñu ñëw jox la kàddu nga wax sa lii sa lii sa soxla émission bi yéen a ko moom contacté leen Leewtoo TV ñu ñëw jox leen wax ñu ngi leen di remercier bu baax a baax a baax amoon mbégte jàkkaarloog góor a jërë ngeen jëf ba beneen yoon